feddliwaat sunu yaakaar ci na Ahmadul Xadim ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bopp ñu ngi ko amal jii di ñetti fan ci weeru koor dëppoo ak ajuma ñu amale ko fii ci Ndindi seq ci ak jataay bi waa daayira Nuuru Daarayni Touba ci kanam ci njiitul sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mamadul Faadal ak bokk yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ñu fab sunu nuyoo nag di ko teg ci sunu loxol sëriñ bii ñu dendal mu féete ci sunu càmmooñ di sëriñ Mourtada moom Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Mahdoul Fadal mi nga xam ne lu jëm ci wàllu social ci Touba ci kanam banqaas la boo xam ne ci la ëpp ab yëngutoom ëppee te ñu dëgmal bis bu tàdd boo xamante ni bii bisu social la te àdduna bépp baaxoon nañ di ko bàyyi xel rawatina néew doole yi ci liggéeyub Touba ci kanam ci weeru koor muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tubaab bii ñu nekk ñu di ko amal ca mbaarum Daaru Xuddoos muy liggéey bu yaatu danañ ci siwaat waaye nu feggoo ci sunu loxol ndijoor ak sëriñ sëriñ Mbay Ten sëriñ Mbay Ten teewal fi waa jasporaa bi waaye féete fële ca Gàmbi te xam ngeen ne ku tudd tubaa ca kanam tudd diaspora bi fu murit yi mën a ne ci biir àdduna bi am na taxawaay bu ràññiku ci Touba ci kanam boo xam ne ñu ngi koy taxawee waaye ñu feggoo ci ak Serigne Modou Mamoun Gadiaga moom it mu féeti ci wàllu communication waaye di liggéey itam ci wàllu finance ñooñu nag lañu seqal ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoo saytu daayira Nuuru Daarayni Touba ca kanam ñu fas yéene seq ak plateau boo xam ne dana bari luñ ci leeral xanaa ngir njëkkante ak waxtu wi damay bàyyi Cheikh Mouhamadou Mourtada mu nuyoo su nuyoo 18 mai bi nga xam ne moom la ñu dëgmal te Touba ca kanam gépp àndandoo di ko waajal mu jëm ci wàllu social ci weeru koor wi Cheikh Mamadou Mourtala bisimilah. auzu bismillah alhamdulillah wa wa salaamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa xadimi wajal kalaami rasida mu mursida wa fikrati nawir wa xalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu sama kilifa yëpp te di ci jiital Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan sunu borom guddal aw fanam te wéral ko waaye di nuyu uh, tey siyaare sëriñ Abo mu Cheikh Mamadou Fadal mi xam ne mooy xalifa bu Cheikh Mamadou di ñaan sunu borom guddal aw fanam te ko waaye di jël nuyoo bépp ak siyaare bi di ko teg ci loxob jëwrinam ci fii ñu nekk muy Cheikh Abdoul Fatah mu Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Xadim gépp di leen nuyu nag ci turu sëñ Abibullahi Mbàkke mi nga xam ne moo jiite kuréel gii di tubaa ca kanam ak sëñ Abdoulahat Mbàkke mu sëñ Abibu mi nga xam ne moo topp ci moom ak sëriñ Abdul Fatah Guèye mi nga xam ne moo jiite association bi di Touba ca kanam ak mboolem ñeen ko bokkal ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu suñu mbokki soxna yëpp di jiital soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Abibulahi Mbàkke ak mboolem soxna yëpp di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan. <coughs> jërëjëf euh, sëñ Mourtala kon xam naa rek dañuy dem ci laaj bu njëkk bi. su ko defee ma soog a ci bokk yi des ñu nuyoo. Mm-hmm. Eh, Touba ci kanam ñu ngi waajal le 18 mais mm-hmm. muy bis social boo xamante ni bii tàmbali wuñ ko ren. Mm-hmm. ñu bëggoon a xam rek waajtaay woowu naka lay demee ak fan ngeen ci toll. ak social bi ci Touba ci kanam fan la jëm. waaw euh, jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal ñu ginnaaw bu ñu nuyoo suñu bokk yi nga xam ne ñun lañu bokkal jataay bi yëpp euh, Touba ci kanam comme ni ko ñëpp xamee rek dafa bokk ci ñaan yi nga xam ne nii e, sëriñ bi da koo ñaanoon te sunu borom nangul ko ko ndax kenn umpulewul mbir ne Cheikh Ahmadul Xadim ci kaw suuf lim ci gën a bëgg mooy dëkkam bii di Touba ba taxoon muy àgg ci di ñaan. sunu boroom def ko mu mel ne turandoom ba nga xam ne moo nekk ci àjjana wajal ilaahi maskani tuba abat mis dasmiha bi jaay xayri man habat ba tax na lépp loo xam ne ñaanoon na ko rek sunu boroom defal na ko ba noppi bis rek lay xaar ndax waxoon na ku ñuy wax sëñ Demba Kebe ne ko li ma wutaleeg awliyaa yi mooy ñoom dañuy ñaan seen boroom may leen dañuy ñaan seen borom seen boroom may leen waaye man nag sunu borom dafa may may ba noppi ne ñaanal li ma la may te loolu Cheikh Abdoul Ahad leeral na ko ba tàyyi madaliyal husna o madali sayat mali yaqulu haka xable madiyat loolu nag mooy dox ci anam gu jamono ji nekk njabootam gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon ñu di ko doxal waxtu wu nekk ñuy seet li nga xam ne nii moom la sëñ Tuubaa bëggoon ci dëkk bi ba tax mu bind ko ci Matlabul Fawsayni ñaan ko fa yàlla te ñaan googu na tëblewul ne dana am doy na ci sëkk firnde jumaay Touba ji nga xam ne nii bokk na ci di gën a rëy ci yoonu murit ba sëñ bi di wax di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko doon tabax di leen ñaanalal njégal njégalu yàlla di ñaanal ñe ko ñe ko ñe leen ko digal ak ñe leen ci dimbali booba 1888 wala 1889 soriwu ko te jumaa ji muy ak 1963 te day mel ne sëñ bi jàkkaarloo woon naag moom ak ak jumaa ji ba tax muy wax wax fir liman banaw bina aha rafix wax fir liman amarahum bihi jamih wali jamihi man ahaanahum xala binaiha lasi bi fadlika xtada kon loolu day firndeel na rek lépp lu si Ahmadul Xadim wax boromam ba ñaan ko ko rek loolu dana am Cheikh Ahmadou Moustapha al Karim daana wax ne li ko sëriñ bi wax mu teg ci bëtam lim ko wax te tegagu ci bëtam la gën a gëm fuuf ci lim lim teg bëtam kon nag loolu mooy dox jamono ji nekk ba jamono dem ba am ay ndaw ñoo xam ne ñoo jug ànd ceeg seeni kilifa ak seeni bokki taalibe ci ku ñuy wax sëñ sëriñ Mouhamadou Fadal Ndiaye nga xam ne ci baat bii di Touba kanam ci moom la jóge mënees naa wax ne moom moo ko sos waaye suñu borom defal ko ci tawféex mu bokk ci li nga xam ne ni mooy ñaanuk sëriñ bi ko nangu Touba ci kanam nag bi mu ñëwee dafay fekk ay kuréel yu bari mu ñëw bëgg foofu kuréel yooyu kuréel yooyu nekkoon mu tege ca la nga xam ne ñoo ngi ko doon def te mu tege ci yoon mu mu topp ca la nga xam ne gisoon na ko ci yeneen kuréel yooye ba seenu doxin xaw a yeex mu fexe ba invité loolu loolu nag moo waral ñu def ay bànqaas ci Touba ci kanam gépp def ay bànqaas yoo xam ne nii am na bu tudd comité scientifique et culturel am na finance am na relation extérieure am na suivi et contrôle am na réalisation ay bànqaas yu bari la ba agsi ci commission boo xam ne nii mooy bi nga xam ni moo moo gën a yitteel ndax dëkk bi ku nekk xam na ne li tax sëriñ bi sant ko sanc ko ginnaaw jaamu yàlla dimbali bindee fi moo tax wallahu yansuru nii wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri saa nafin bila darrin njariñ loolu nga xam ne moom la sëñ bi am te àndut ak lor bokk na ci li nga xam ne nii moo tax nit ñëpp faxe seen dëkki maam ñëw fii mu am nag commission boo xam ne nii nit ñooñu moo tax ñu def ko ndax nit ñi ñëpp yemuñu am am ñu tuddee commission boobu commission sociale sociale nag buñ ko waxee ci baatu français la waaye mooy dimbalante te yàlla tax te jaarale ko ci Serigne Touba mooy al infaq fi sabilillah loolu nag mu doon njariñ loo xam ne nii ku jàng alxuraan néewaana nga gis aaya boo xam ne suñu boroom da cay digle gëm yàlla wala mu cay digle julli wala mu cay ñaax julli di te tegu ci ab ab joxe doy na rek doy na rek sëkk inna lisi yadoon inna lisi yadoon kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu bima razaqnahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuura ak foofu muy waxee ne aminu billahi wa rasulihi waa fi wa anfiqu mimmaa jaxalakum mustaxlafiina fii na ngeen gëm yàlla na ngeen gëm yonante bi sallallaahu alayhi wa waaye alal ji nga xam ne maa leen ko dénk na ngeen na ngeen ci dundale ci yoonu yàlla kon olof sax day wax ne eh, yàlla mayewut dafa dénkaane kon loolu moo waral Touba Ca Kanam sos kuréel goo xam ne nii bànqaas boo xam ne nii social lañ koy tuddee ngir mu taxawu mbindeef yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba te seen loxo jotu seen ginnaaw social nag seen i fi ñuy taxaw bari na waaye li ci njëkk rek mooy dañoo gis ne sëñ Tuubaa ku koy liggéeyal amul lu gën a rëy nga di ko liggéeyal ci alxuraanul karim ndax jaamu yàlla yi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadul Xadim tagg yépp ba ca gën a rëy yaakaar naa mooy jàng alxuraan ba tu ba tax mu doon wax naan fa tuuba li xabdin yahbudullaha rabbahu bi tartiili quraanin xasimin yaqi karba kitaabum bihi massaktu mustaxniyan bihi xariban wa ansaanil musibaati wal kahba bihi saala xammi xiina amsaktuhu hudan sa ahdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahba kitaabum bihi narjo minallaahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa uxra minal karbi àgg na ci daan wax ne samay tool mooy té mooy alxuraan bisaani kitaabullaahi bu masaana wax ne sama ñooñ tamit li jublu mooy waa alxuraan la ci jublu ba tax ñu gis ne ci anam mi ci jumaa ji am na ñu fi nekk di jàngal sëriñ bi waxtu wu nekk ay kaamil di ko def bis bu nekk juróomi kaamil ñu gis ne ñooña kat ñun ñoo leen waroon a taxaw ci lépp donte nag sëriñ bi mi ngi leen di taxawu ci anam yawar yëpp am na yeneen bokki taalibe tamit yoo xam ne ñoo leen ñoo leen taxaw waaye ñun tamit ñu bëgg am ci barkeeb ku liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan tax ba weer wu dee ñu seet ay ay ay barkeelu yoo xam ne ay addiya la yoo xam ne nii la war ci ñoom moo ëpp fuuf waaye feeñal yéene rek la ndax suñu yéenee ci ñoom mooy dem ba la leen war ca seen kër yëpp ñun ñu gàddul leen ko loolu mooy suñu yéene foofu la social tubaa ci kanam tàmbalee bu weesoo loolu itam dëkk bi am na ñoo xam ne nii dañuy wéradi te duñ am kàttanu mën a faj seen bopp ñooñu itam bu ñëwee ci tubaa ci kanam wax ko ñun ñooy dajale suñuy dërëm dërëm fexe ba seen jàngoro yooyu ñu saafare ko ndax sëñ Touba na sol moo waxoon ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci islaam te saxaaba yi dañ daan def lu ñu am bokk kook seeni morom àgg nañ ci muhaajiroon ak al ansaar yi àggoon nañ ci ku am ñaari soxna sax da ngay jël benn soxna jox sa morom mooy la alxuraan di wax naan wa yusiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu nag mooy li ñu Cheikh Ahmadul Xadim jàngal ba tax na donte am nañ waaye jàpp nañ ne am na ñeneen ñu ëmb te ku nekk bu jëlee la nga am jox jo sa morom bu yàggee ñëpp am kon nag ñuy faj ñi nga xam ne ni ñoo ñoo tawat bokk na ci li nga xam ne loolu la social di liggéeyee tamit mooy at mu jot ñu dem ci sancaan yi recensé fa lu tolloog ab lim daaw ñu ngi defoon cent 338 famille euh, ren ji am nañ yéene mu àgg ci 400 wala 500 bu ko defee yóbbu leen ci mbaarum daarul xudóos def ab conférence boo xam ne ci wàllum diine ak wàllum dimbalante gën cee ñaax mbooloo mi bu noppee yëkkati ay ndimbal yoo xam ne nii dañ leen koy jàppale euh, di leen di leen ko jox ndax sëñ tubaa daana wax ne jaamu yàlla yëpp li ci gën mooy bernde waaye eh, li ci gën mooy yëpp mooy joxe joxe nag ba ca gën mooy mooy mooy bernde leere moo tax ñu leen di jox aw ñam ngir jàppale leen ko ci seen kër yooyu eh, ren jii ñu ngi ko bëgg a def le 18 bii di ñëw dëppook samedi bi njëkk ci koor gi bi ci topp muy samedi bii di ñëw bu dellu see incha allah ci mbaarum Darou Khoudoss eh, di ci woo bokki taalibe yëpp di wax na nag lépp loo xam ne ni war nañ ko faa joxe dimbalee ko suñu bokki taalibe yi amul benn dërëm boo xam ne dana war a jóge ci compte Touba ci kanam yi nga xam ne nii moom la ñuy laaj murit bu nekk weer wu dee mu joxe 1000 francs waaye ni muy tëddee mooy dañuy wax rek mbokki taalibe bi yëpp ku ci nekk yëkkati la nga am ku man saakub ceeb joxe ku man sonub ceeb joxe ku am junni joxe ku am ñaar téeméer joxe yooyu nag bu ñu ko dajalee nag ci leen yi jël jéem koo jox suñu mbokki taalibe yooyu nga xam ne ñoo ngi woor te koor gi metti na te eh, jamono xaw naa ñagas tuuti ñu jëm leen ci jox ab dund ba noppi jox leen luñ ko transporté bokk na ci liggéey social tamit kore gu jot danañ fexe ba am ay gàtt lu ñuy wax nag jënd ko def ko ay saam dem séddale leen ko at bu tabaski gee danañ fexe ba wut lu tolloog 5000 yére daaw lañ wutoon yére yoo xam ne yére yu bees lay doon mu ko defee ñu dem ci ñi nga xam ne nii xëy na seen loxo jotewul seen ginnaaw ñu yóbbul leen ko bu mbale mi nga xam ne moom la sëriñ bi santaane ci at mu jot ñu di ko def bu ñu di ko waaj te màggal danañ ko ànd ak bay Fall yi ci jàppal leen ci wàllu bale ak wàllu masque yooyu ñuy takk ak wàllum ndox ak yu demee noonu danañ fexe tayit ba màggal jàmm mooy am lu ci ëpp waaye ku ci xam ku nekk xam na ne ay accident yi ñaare dana am ñu fexe ba suñu bokki taalibe yooyu di ñëw tamit ku ci loru ñu def journée boo xam ne ni don de la ñuy def maye deret nga xam ne ku ci loru danañ man la dimb dimbali ci wàllu googu ak yeneen ak yeneen activité yoo xam ne dañ koy def lépp ngir euh, jàppale ci sëriñ bi ci dëkk bi loolu lépp nag lu tax ñu taamu ko ci weeru koor lu tax ñu taamu ko ci weeru koor mooy weeru koor moo gën ci weer yi ndax guddi gi gën ci gën guddi yi muy laylatul xadar ci la ci la ci la ko suñu borom defee ci la alxuraan bi nga xam ne moo gën ci téere yi ci la wàcce te yonente bi daana wax ne ay gore ab ab jaam boo xam ne nii weeru koor ñëw na ba dem te sunu borom jéggalu ko ci ay bàkkaaram ndax ku nekk xam na ne seytaane mi nga xam ne mooy jaxi-jaxi nit ñi di leen yàqal seen jëf bu weeru koor jotee suñu suñu borom da koy tënk joxe nag njariñ la ca nekk kenn xamul nu mu toll doy na sëkk rek li sëñ Tuubaa wax ne ci masaalikul masaalikul jinaan ne jël benn tibb leeral ko aji xiif moo gën fuuf tabax junni jumaa te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ko tabaxal yàlla jàkk suñu borom dana tabaxal pale ci àjjana sëñ Tuubaa li mu wax ci masaalik mooy wa luqmatun tasuddu banal jaahi afdalu min binaay afdali alfi jaamihi kon nag ñu ngi ciy woo suñu bokki taalibe yëpp jëf la joo xam ne nii ko fi jaarale jëmale ko ci Eh, taalibe sëñ Tuubaa yi nekk ci dëkk bi sëriñ bi dana ko nangu suñ borom dana ko nangu ndax sëñ bi lenn lu amul njariñ du ko du ko jublu ndax moo waxoon ne lam anhum maalam yufiri macha allah jërëjëf euh, sëriñ Mourtada yaakaar naa leer na te mën naa gën a leer ci ni sëriñ Tuubaa wax ne wabiya basir bil yataama dawaaman insihim abaahum kulla ini sëriñ Tuubaa nee na yàlla na bégeele jirim yi mooy néew doole yi ñi ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñi tumuraan ki nga xam ne kenn féetewu leen fenn nee na naa doon seen mbégte ba fàtteloo leen sax seen baay yee ñu amoon ak seen seen yaay yee amoon kon yaakaar naa ne ci sociale ku koy woote Touba la gën a jaadoo waaye am na solo lool nag ci ni ko Touba ca kanam doxee mooy sociale boo xam ne doo tànn ko la neex da ngay taal sa oto dem ba ca sancaan ya nga wër xoolal sa bopp ba gis na ñii kenn ku ci nekk aajo woo nga loolu nga wut ab ticket jox ko def ci ab numéro téléphone nga xam ne moom dañ koy rappel rek bu ñëwee ñu jox ko lañ ko war a jox yaakaar naa ne joxin wu maandu la waaye joxin la woo xam ne it wu tege ci yoon la waaye day mel ne ci côté boobu bala may ñëw ak sëñ euh, mbay euh, day mel ne social bi it euh, wax nga ne jógewut ci keesu Touba ci kanam waaye day mel ne kon ñii def ngir yàlla it jox ko ak Touba ci kanam dugal ci seen ñaq dana ci mën a dem waaw loolu sax bokkoon na ci ba tax xalaat yi nga xam ne amee woon nañ ko mooy demoon nañ ba xalaat ne asa asaka yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ci at mu jot te mu doon euh, loo xam ne suñu borom moo ko farataal ci bépp jullit boo xam ne ni mm, euh, sart yi tase na ci yow ndax moo wax ne xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakkihim biha asaka yooyu bu fekkoon ne fexe nañ ba organiser ko bay fexe képp ku mën a kiy joxe asaka rek am fu muy daje ginnaaw bu ñu ci amee ngi ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi yàlla na ko suñu borom guddal aw fanam te wéral ko mu naa lam yëpp mu Cheikh Amadou Mountakha suñu ci amee ndigalam ñaax ci suñu bokki taalibe yëpp ba ubbi lu ñuy wax baytu sakaat nga xam ne képp kuy joxe asaka rek da nga koy dugal foofa ndax asaka njariñ li objectif bi nga xam ne moo tax islam teg ko mooy kun dimbali ren bu ëllëgee bu ne nga bokk ci ñuy dimbalee loolu nag man mu yore sama téeméeri junni wala sama 1 million di ca joxe asaka 25000 francs kama koy jox mën na koo lekk ci bis bi waaye bu fekkoon ne asaka yi dafa dajaloo ba nga xam ne nit ki da nga mën a yëkkati lu mat ko bu déwee déwénee mën naa bokk ci ñi nga xam ne ñoo joxe asaka loolu nag buñ ko organisé woon yaakaar naa fépp la ko war a rawatina fii ci tubaa nga xam ne dëkk bi di tax suñu borom sant ci ko lu sa lu tax Cheikh Ahmadul Xadim sant ko sant ko di Abdullahi wa Xadim rasulihi ñaar rek la muy jaamu yàlla ak dund sunu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon fu fu ñu koy organisé rek fii moo ci raw loolu nag am na tubaa ci kanam am na yéene def lu mel noonu su boobaa nag ñi nga xam ne ñoo ngi ciy dugal seen alal dana tax ba ñii ñuy jàppale mu gën a néew ndax suñu borom ci boppam moo sàkk àdduna te bëggul mu jàkk kon ku ñàkk moom mënut a ñàkk waaye dana gën a wàññeeku kon képp koo xam ne ni jàpp nga ne war ngaa joxe asaka wala nga bëgg a wala nga bëgg jëfal sëñ bi bunt yi war a jëfalee sëñ bi bari na waaye bunt bi bokk na ci bunt yi nga xam ne nii boo ci jëfalee sëñ bi dana ci dana jot ndax ku nekk xam na ne bàkku Touba Ca Kanam mooy laaj lu ñu am def ko fu ñu xam ndax doy na sëkk ci tubaab yi lu tax tubaab bu ñuy fayee ko impôt lu mu bëri bëri bëri bëri sa xel li ca dal mooy da ngaa xam fa mu jëm te leeraanga googu muy transparence boobu am na ci Touba Ca kon ñu ngi ciy woo suñu bokki taalib bi yëpp rawati ñi nga xam ne suñu borom dénk na leen ñu am kàttan te alal jooju ñu yor ñi nga xam ne dañoo amul dañ cee am euh, dañ cee am aq wa fi amwaalihim haqqun li saa'ili wal mahrum am na fa suñu borom waxee ne na ngeen joxe alal yàlla ji nga xam ne moo leen ko jox wa atuhum min maalillahi lazi ataakum kon ku nekk li nga yor boo bëggee mu barkeel da nga ciy jéem a joxe loolu sëñ Tuubaa wax na ko ba tey sëñ Saaliu Mbàkke tamit daana ko wax naan addiya mooy fekk fu dara nekkut mu def fa dara mooy fekk fu dara nekk mu yokk ko mooy fekk fu fu lu bari nekk mu gën koo barkeel kon buntu la boo xam ne nii kuy jëf tey jëf yàlla tax ñu ngi lay tàllal suñu loxo rawatina suñu bokk taalibe yi daaw nag am na ñu ci jëfoon jëf ju rëy joo xam ne mënuñu mënee suta ñàkk a tudd seen seen seen tur mooy ku mel ne sëñ Fallou Mbacké Mané daaw jëfoon na fi jëf ju rëy joo xam ne nii li ëpp ci ca yëf ya loxoom duggoon na ca ren ji itam am na kilifa yu commencé dugal seen loxo mën nañ cee tudd sëñ Abibu mi nga xam ne ni moo jiite kuréel gi ci Touba ci kanam def na fi jëf ju rëy sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké mu Cheikh Mamadou Fadal moom moo ubbi yëf yi moo njëkk a ci tàmbalin bu am solo boo xam ne ni mi ngi ko defe woon ci weeru rajo bi moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax mi ngi ciy jàpp anam yu bëree bëri ci xalaat ak ci yu bëree am na yeneen bokki taalibe yoo xam ne nii yëkkati nañ seen alal def ko ci ñi ngi tàllal ñi nga xam ne nii ñëwagul yoo xam ne mbir mi mbir la moo xam ne mënees na ci am ngërëmul sëñ bi ñu kenn nag képp koo xam ne bëgg na cee participer Touba Ca Kanam am na ay numéro yoo xam ne boo boo boo leen boo jokkoo ak ñoom danañ la wax fi ngay jaar ba seen ba sa sa jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadou Mourtala loolu leer na kon day mel ne rek euh, tomb boobu sax ni ma ko gisee am na ñuy am asaka te mënuñu koo séddale day mel ne ñooñu yor asaka te mënuñu koo séddale sax bu jokkoo ak Touba ci kanam jox ko seen asaka dana lañ ko mën a séddaleel ci séddalin woo xam ne bu maandu la kon baytu zakat boobu day mel ne su fekkee ne nit ñi dégg nañ ko bu baax rek day mel ne léegi joxe asaka eh, ci Sénégal dana daal di yomb ndax dana am foo xam ne farañ ko mën a dajale ci koy séddale ñu maandu la doon te séddale ba dana mën a daj adduna bépp yaakaar naa loolu am solo lay doon kon damay ñëw ak sëñ Mbay moom moo féete ci wàllu diaspora bi eh, ku tudd Touba ci kanam tudd jaspora bi waaye nag Touba ci kanam dafa bari ay naal sëñ Mbay Euh, naal yi ñu ngi ci ab ay ay ay ay ay poste de santé waaye nawet baa ngi dëgmalaat poudrage a ngi ci suñ kanam euh, nawet baa ngi dëgmalaat mbarit maa ngi fi assainissement baa ngi fi waaye sànceb sëñ Touba bi nga xamante ne bi mooy université bi mi ngi fi ca loolu lépp ñu ngi ko aj ci ñaqu murit ci seen ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy joxe joxe par par par weer te ñaar téeméer damay wax ne toujours ne day mel ne murit yi dégg nañ woote bi waaye lu tax jëfuñu jëf ji te kenn nattablewut ne ni ko sëñ bi waxee laaj lu ñu man lay doon te di ko def fu ñu xam te Serigne Touba moo ñaanal boppam ci dëkk dëkkam bii wax ne sun borom na nga jéggal képp koo xam ne jàppale nga ma ca tabaxab sama dëkk bee wax firli man banaw binaa ahar rafi ñu bari ci jumaa ji lañ koy firnde waaye jumaa ji mooy dëkkub Touba bi rek ndax la mu waxal boppam euh, wàccal ilaahi maskani Touba abat mislas mi bi jaahi xayri man abat na nga def yàlla yow sama dëkk bi mu mel ne turandoo nga nekk ca àjjana kon dëkk bi lépp loo xam ne gis nañ ko Makka wala ñu gis ko Madinatul Munawwara war naa mën a am euh, fii ci Touba kon yaakaar naa ne ñaar téeméer yi nga xam ne moom la Touba ci kanam di laaj te dañu waxoon ne lu gàtt gàtt sëñ Touba moom am na lu mat ñaari ñaari millions nga murit murit ndax Sénégal li fi nekk mat nañ 14 millions d' habitants wala 15 millions d' habitants 15 millions mënut a am ci ñaari murit yu ñaari millions yu yaakaar sëñ Touba ci ñaari million yooyu bu ne doon joxe 1000 francs 2 milliards lay doon te mel ne weer wu dee mënaguñoo am 1 milliard léegi côté boobu.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 mu jottalul ñu ko mbooleem kilifay Touba ci kanam yëpp waaye ñu jagleel nuyoo euh, relation extérieure nga xam ne mooy diaspora bi tudd ci ku mel ni Serigne Abo Bousso mi nga xam ne moo jiite commission relation extérieure waaye teg ci Serigne Mohamed ak Serigne Moustapha Mbacké naka noonu it ñu nuyu ñi nga xam ne ñooy assemblée générale diaspora bi muy coordonnateur diaspora ci njiitul Serigne Mouride Ndaw nga xam ne fa la coordonnateur yëpp daje. waaye di nuyu mbooleem sous commission yi nga xam ne sëñ Fallou Galas euh, dañuy support yu am solo ci Touba ca kanam ci wàllu jaspora bi mooy lu mel ni sous commission bu Afrique Serigne Khadim Thian jiite ko waaye ñuy remercier Pape Ciss mi fa nekkoon daaw def ci liggéey bu mucc ayib waaye sous commission bu Europe Baye Serigne Gueye moom moo ko jiite euh, sous commission bu Amérique Serigne Soñ bu sekk te ànd fa ak soxna Dikel Thiaw Badiane sous commission bu Asie Euh, Pacifique Serigne Amady Wade moom moo ko jiite euh, mu mel ni ñeenti continent yi noonu lañ ko séddalee ci relation extérieure xam naa euh, ni commission bi tënkoo tëddee ni ci wàllu doxalin muy organisation moom moo waral mu demee noon mais ci biir loolu tamit mu amaat ay sous commission yoo xam ne dañoo soqikoo ci branche yu mag yi nekk biir Sénégal lu mel ni sous commission massification mi ngi ci diaspora bi sëñ Blaat Amar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax su commission communication Serigne Modou Diouf jiite ko te Serigne Khadim Badiane nekkoon fa daaw def fa liggéey bu am solo waaye su commission bi nga xam ne mooy suivi et évaluation Serigne Seck bu Guinée-Bissau moom moo ko jiite. sous commission bi nga xam ne moom mooy sociale Serigne Cheikh Ndiaye bu Brésil moom moo ko euh, jiite su commission scientifique et culturelle yàlla dogal na ñun ñi di wax ak yow ñun lañ ko dénk. en même temps tam ñuy jaar bu baax a baax euh, waa su commission programme ak discipline euh, ak charge. boobu tamit yàlla dogal na ñun ñii lañ ko dénk waaye waa charge tam ñu ngi ciy ziar baax a baax sëriñ Abdou Salaam Faye mi nga xam ne moom moo yore euh, li nga xam ne mooy secteur boobu ak ñi mu ko seqal ñëpp lu mel ni wàllu médiation sëñ Moussa Mbacke Mansour ak euh, mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo bokk na ci lii di Touba ci kanam loolu nag sëñ Fallou boo ko déggee mooy pour ñëw tontu ci sa question bi diaspora bi dañoo teel dégg euh, jubluwaayu sëriñ bi mooy yàgg nañu tukki di dem ci ay réew yoo xam ne réew yu organisé wu lañu la ngay dem da ngay am visa am na fooy jaar am na procédure yu fa am yoo xam ne lépp dañ koy teg si yoon bi ñu déggee rek lii di euh, Touba ci kanam te diaspora bi war ci am wàll ñu créer commission bi ci ndimbalul sëriñ Abo soo ak ku sëñ Ablaat loo sëñ Ablaat ña ngi bëgg falu ci la ñu génn commencé jéem a implanter li nga xam ne mooy Touba ci kanam ci diaspora bi parce que suñu objectif moo nekk 2 millions de murit bi benn million bi ñun dañ ko génne ci diaspora bi. xalaat nañ ne loolu war na mën a am mais nag euh, un million de murit ñëw leen ci Touba ci kanam rek du tax ñu ñëwee noonu dafa am organisation boo xam ne moom ngay teg teg yoon yoo xam ne ci ngay jaar pour dox jëm ci loolu ci lañ nekkoon bala ñuy def dara organisation moo war njëkk am ci la ñu décentraliser commission bi nga xam ne mooy commission relation extérieure utal ko ay sous commission mu dem ci neuf sous commission yoo xam ne dañu sax ci moom di jëlee ci moom instruction dem liggéey waaye ñëw sottiwaat ci moom moom nag mooy jël sottiwaat ci comité directeur bi nga xam ne moom moo koy liggéeyaloo comme yeneen commission yi nga xam ne ñoo nekk au niveau national. mu mel ni dafa am loolu bi mu amee euh, structuration bi jaar na yoon te gis nañ ci nosu goo xam ne parce que bu ñu xoolee at mu njëkk mi muy 2016 bi jàpp 2017 bi muy jeex euh, bariwul woon ci diaspora bi ñu fi dugg def naa ay ñaar ñetti réew mais 2018 bi gis nañu ne lu tolloog 20 2017 euh, bi lu tolloog 27 pays. dugg nañ ci euh, Touba ci kanam euh, grace ak massification bi ñu gis na kon déjà liggéey bi kon mi ngi commencé am euh, ci biir loolu nag bi nga xamee ne créé nañ sous commission yooyu nii la ñu tëralee liggéey boobu lu mel ni communication parce que li njëkkoon mooy communication moo njëkkoon am ak massification mais biñ ci doxee tuuti xam ne ku soxla communiqué ak 2 millions de mourides benn nit wala benn kuréel rek du mën def loolu ñu décentraliser. séparer communication ak massification dénk sëñ Xaadim Badiane communication dénk ki nga xam ne mooy Abdoulaye Amar massification ñu def ci liggéey bu am solo ci loolu la ñu liggéey ci année boobu euh, yàlla dogal ñu am vingt 27 pays yoo xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi bi ñu dugg si waatee tamit ci li nga xam ne mooy deux mille 2018 bi ci mois d'avril ñu def benn assemblée générale ci commission relations extérieures euh, nag jéem a xool nan la commission yi liggéeyee ci lañ génnewaat bànqaas yi ma lay wax nii ci lañ commencé nag liggéey foog mu organisation waa massification jokkoo ak waa communication léegi ñu jéem a xool carte monde bi muy àdduna bi 197 pays yi am yëpp ñu seet nan la ñuy fexee ba liggéey man fa àgg loolu tamit ñu ngi ci collaborer ak waa communication bu ñu génnee par exemple mat ay 7 wala 8 pays eh, dugal leen ñu def benn spot publicitaire ñu ngi remercier au passage Serigne Fallou Ndiaye ak team bi nga xam ne moom la àndaloon parce que liggéey yooyu yëpp ñoom ñoo ko doon taxawee suñ jëlee lu mat 7 pays wala 8 pays leen. publicité ko mu daw ci réseaux sociaux yi am mu yu fa feeñ yoo xam ne dañuy jaayante jënd cardement de mais war fa nekk suñu coordonnateur loolu tam bi mu amee ba yàlla dogal en 2018 bi am nañu lu tolloog 62 pays mu mel ni 27 moo fi nekkoon cinq pays dolliku na ci wàllu liggéey bi kon ñu gis ne ci côté massification bi def nañ paa bu am am solo boo xam ne ci année 2018 bi la mais communication bi tam bu ñu xoolee def nañ ci participation bu am solo ndax waa massification dañuy désigner rek ne dëkk sangam ak dëkk sangam lañ soxla jox waa sous commission organisation ñoom ñooy def publicité bi dugal ko euh, jaarale ko ci réseaux sociaux yi ba am ñu fa feeñ ñooñu nag bu ñu leen jëlee copte leen comme ay coordonnateur dañ leen di jël ci biir loolu tamit moo am beneen formation boo xam ne sëñ Fallou Galas diaspora bi mi ngi koy liggéey pour jéem a dox egg ci un million de murid boobu mooy fi mu ne képp koo xam ne mooy 62 coordonnateurs yi nga xam ne ñoo am ci diaspora bi kenn kuñ ci nommé coordonnateur d' abord da ngay jënd carte de membre 5000 francs euh, ak sa 12000 francs muy 17000 wala 28 euros yi mais loolu boo ko defee ba pare dañ lay jël dugal la ci group coordinateur groupe euh, massification parce que comme yow yaa war a gérer réew moomu war di massifier war di communiquer dañ la war a fal formation soo duggee ci biir group euh, su commission massification boobu neuf sous commission yi ma la wax ne yëpp seen i responsable dañ fay nekk su ko defee exemple bu ñu dugg see waa scientifique ak culturel dañuy dugg wax la base bi ñu teg liggéey bi ndax ku ne xam ne ne Touba bi ko sëñ Touba sanc lenn rek moo taxoon mooy jaamu yàlla ak liggéey kon liggéey projet Touba kanam ak lu mu rëy rëy base bi muy reposé wu pour mën a dem mooy chariatul islamiya ak teg ku ci ni ko sëñ Touba doon defee kon waa scientifique ak culturel ñoo njëkk a dugg euh, euh, fexe ba terrain bi leer tegal la fi sëriñ bi war a jaar ak nu ñuy jaaree ak nu ñu war a àndee ba mu leer la ne nii war a àndee ak ñi suñu génnee waa communication dañu ñëw wan la boo waree communiquer ak nit ñi nan def parce que sëñ Fallou Galas xëy na Sénégal am na tuuti jafe ci nit ñi dugg ci biir Touba ci kanam mais diaspora bi moo gënoon a parce que président daayira yu bari dañu ragaloon ne bu Touba ci kanam ñëwee daf leen di xañ seen pouvoir ñu amoon mm-hmm. li ñu yoroon dañ koy ñàkk loolu doon kilifa ak yu mel noonu mais loolu pour mu dañoon ci seen bopp yombul mais nag avec communication bu efficace euh, réussir nañu mission boobu ba dañu ñëw ci yow mi yor daayira bi wala yow mi jëwriñu Sëriñ tubaat ci réew moomu ñu wax la ne liggéey bi yaa ko moom ndax ndigalu sëñ Muntaxa la loolu bi mu amee ci eh, wàllu liggéey boobu coordonnateur bi su duggee communication dañoo def participation civi euh, et évaluation ku ne xam na ne liggéey pour mën a dox foog mu am ñu koy suivre di natt weer bi li ñu liggéey lan la lan moo dox lu des ak lan moo tax mu des yi suivi évaluation ñëw def liggéeyam xëy na pour tënk ndax peut-être que neuf sous commission boo ko bëggee décortiquer dina jël temps mais Euh, évaluation day ñëw ak si ñoom tam def seen participation suñu paree président sous commission bu yu continent yi dañuy participer parce que réew yooyu ci biir continent yooyu lay lay nekkee su ko defee ñoom ñoo leen di couvrir doon seen mu ñoo leen di chapeauter ànd ak ñoom ci liggéey bi wala leen it nañu war a àndee ak ñi ñu war a coordonner war a seq ak ñoom liggéey bi euh, bu ñu liggéey ba pare dellusiwaat ci ñoom euh, suñu noppee ci loolu lu mel ni waa discipline ak programme xam ngeen ne li ñuy wax yëpp mënul am te respecté yoon amut ndax lépp lu amul organisation ñu sàmmonte ak sart yi ci anarchie lay mujjee donc loolu moo tax nag programme ak discipline tamit moo daal di jóg créer programme bu am solo lu war a mat juróom-benni programme yoo xam ne ci diaspora bi dañuy daw muy lu mel ni euh, leeral ko ak nga xam ne bépp responsable bu nekk ci tubaat ci kanam ci diaspora bi même au niveau national dinañ la invité nga toog ñu laaj la li nga yor. nu ñu la ko denkee noo koy nu muy fonctionner yan jafe-jafe nga ci am ak lan nga ci réussir euh, benn émission deuxième bi mu am benn émission boo xam ne Café Diaspora lañ koy wax boo xam ne par pays ñoo koy aye ma masalan tey Gambie da koy aye su boobaa dañuy jël responsable Touba ci kanam yi nga xam ne maîtriser nañ les sept domaines prioritaires yi nga xam ne moo tax Touba ci kanam jóg muy projet bi dañuy ne ci biir su ko defee ñooñu dañ leen di laaj ci biir réew moomu ku ci ne li nga yore ba waa réew ma bu ñu fa jógee ñoom mën nañu nekkal seen bopp koo xam ne tey ñoo war a jàngal liggéey mu mel ni ci biir formation boobu day feeñaale ci kafe diaspora bi am nañ beneen émission bu ñu wax tam ganu bés bi boobu tam dañ ciy dalal ay responsable yoo xam ne tamit dañoo yore ay responsabilité ci tubaat ci kanam ci relation extérieure am na boobu tam ci koy présenté mooy soxna di kel caw bajaan beneen mu ma wax ku ñu wax sëñ Mouride Ndaw moom koy présenté am na beneen émission bu ñuy wax euh, yaatal Touba ci kanam ak sama gox boobu masalan dañu gis ne ressortissants sénégalais yi nga xam ne ñoo ne ci bi doon ay taalibe bu ñu ñibbisee seen koñ war nañu mën a invité benn café diaspora woowaa koñ ba waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy Touba ci kanam ak li muy jëriñ surtout ñoom ñu nekk biir Sénégal pour ñu koy mën a amal boobu tam di quatrième émission bu am solo boo xam ne waa discipline ak programme ñoom tamit créé nañu ko am na beneen émission boo xam ne mooy diisoo comme ni ko discipline ak programme bu mag bi amee mooy lundi bu nekk lay doon nga xam ne dinañ ciy waxtaanee lépp luy jëmale Touba ca kanam ca kanam waaye nan la ñuy defee ba lu koy gàllankoor ñu mën koo éviter fexe ba mën a réussir li nga xam ne mooy sunu mission. Euh, mu am beneen euh, sous commission boo xam ne tamit moom it day def liggéey bu am solo muy wàllu charge ak médiation xam nga ne ay nit fu ñu dajee wute xalaat ak wute gis-gis la ñu yàlla mooñaale te bala ñuy déggoo faaw mu laaj ab temps kon faaw mu am benn kuréel boo xam ne ñooy ne ci biir yor bët bu xereñ bu ñaw boo xam ne dañ koy teg ci ñëpp nga xam ne fu ñu déggee kàddu jóg gu war a mën a na daañ jot ñooñu ci ci suuf wax ak ñoom euh, déggal leen ba ñu mën a àndaat ci liggéey bi ñu war a ànd kon daal su ma la bëggee wax tey ne la euh, un million de murid bi nga xam ne ñun dañu visé ne war nañ ko génne diaspora bi support yi ñuy war a teg pour dox jëm ci moom euh, teg nañ ko li des nag mooy tàmbali pour dox te tàmbali bi tamit gis nañ ci vraiment ci 2018 bi résultat bu am solo ndax bu ñu jógee ci 27 pays dem ci 62 pays 35 pays de plus kon plus de 50 wala 65 pour cent tey def nañ ko ci bon année bi ñu génn ci wàllu massification ci réew yi yaakaar nañu ne loolu lu am am solo la te bu ñu jëmee ci li nga xam ne tamit mooy parti bi sëñ bi nekkoon léegi muy wàllu social bi eh, ku ne social di nga ne diaspora te wax nga ko léegi loolu it ñu ngi ciy def liggéey bu am solo l'année dernière def naa def nañ ci liggéey boo xam ne eh, boobu sëñ Moustapha Amar moo fi nekk ñu ngi koy remercier encore de passage def na fi liggéey bu mucc ayib mm-hmm. xal yoon yu leer teg yoon yoo xam ne vraiment def na ci liggéey boo xam ne yoonu mu moo laaj yeesal ak mbir mu nekk ku nekk li nga ci war a def da nga koy def sa morom ñëw def li mu war a def waaye su fekkoon ne liggéey bu rafet rek la dañ naan Moustapha Amar liggéey bi mu def macha allah waaye liggéey bi nag mooy doxee noonu lay demee kon moom it daaw def nañ ci liggéey bu am solo def ci participation yu am solo ren jii itam soññee nañu ko soññee yu am solo yoo xam ne dafa gën a sax euh, particulière ndax yamuñu ci soññee ci groupe coordonnateur diaspora mais dañu jokkoowaat ak coordonnateur yëpp ku nekk ci groupe am mu soññ ña fa nekk ñu soññiwaat seen commission sociale ñu dem ci ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan te ñu bokk ci yoon wi te sax amaana du ñu participer ci wala néewuñ ci groupe yi ñu mën a def seen loxo ba ndimbal li ñu soxla Serigne Mourtala Mbacké wax na daaw mi ngi nekkoon cent 338 familles ren amoon na yéenay euh, mu ëpp loolu loolu nag ñun ñoo ko ci mën a dimbale maa ngi wax ci benn audio ne moom dafa tay la boppam ndax ñëw na wax ne am na yéene li ñu defoon daaw dañ ko war a dolli te du ñu génne benn dërëm ci mille francs yi laaj ndax sëriñ Abib Mbacke ni mu ko waxee mille francs yi li ko tax a jóg bu ñëw see loolu lañ ciy def kon moom bu jàppee war nañu am lu ëpp 338 famille ba yëkkati kàddoom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaïndé Fatma daa waxoon ne asgor su waxagul moom moom boppam mais su waxee teelal na boppam kon mën naa wax ne sëriñ Mourtala dafa teyle boppam ngir engagé na ñu def lu ëpp loolu ñan ñoo ko war a jot mooy ñun taalibe yi sëriñ Tuubaa yi surtout nag ñun ñun ñu nekk diaspora bi kenn ku ne la nga defoon daaw bul ca yem ndax boo ko defee ñëpp def ni yow la tekki mooy 338 famille la ñu war a mën a la ñu war a mën a satisfaire waaye nag kenn ku nekk jàpp ne soññee bi man maa ko war a dëggal ñaanu sëñ Touba gi ni ñu ko war a ci Touba muy faw seen nga xam ne ay nit ñoo koy def waxi sëñ Mourtala mi it nun noo ko war dëggal mooy kenn ku nekk jaayante waat ak sëriñ bi dolli la nga doon def lépp ci wàllu social ba suñ ci àggee liggéey bi ñu mën ko def sëriñ Fallou Galassi la euh, jërëjëf sëñ Bay euh, jërëjëfe bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo duñu seetaan topp seen télévision euh, Lamp Fall TV Eh, ñi ngi ànd ak jataay bi nga xamante ne bii moom la ñu dajal dalal waa daayira nooru daara ni Touba ci kanam yaakaar naa ne andi nga fi ay andi nga fi benn ay tomb yoo xam ne waxuma la doxal ab daayira waaye ku bëgg sam réew jàkk sax fa nga faaw nga jaar foofu mooy teg ay conditions yu leer naññi ak ay banqaas ci ay ay mbag mbagg yooyu it ay bët di leen xool di leen saytu yaakaar naa ne eh, tudd nga fi communication tudd nga fi massification waaye tudd nga fi nag nag eh, yeneen yoo xamante ne bi ñoo topp ci ginnaaw yooyu di ko di ko xool ca mel na ne mbir mënut a dem ci amut communication communication bu amee massification moo war a mën a jur njariñ mën a génn communication nag ci la ñuy jokkaarloo ak sëñ Moudou Mamoun Gadiaga mu di ci liggéey waaye di liggéey wàlle ci social sëñ Moudou Mamoun gis nañ ne Touba ci kanam léppam communication la ndax diaspora yi bu communication amutoon duñ fa mën a àgg sëñ Bay wax na ne jóge nañ ci 27 pays dem nañ ci 62 pays tey euh, euh, opté 197 pays yi nga xamante ne bi ñoo am ci adduna bi loolu lan moo ko fa mën a yóbbu mooy communication moo mel ne communication daa ngeen cëngutu waaye ren jël ngeen ci ay engagement yoo xamante ni bii day mel ne mi ngi gën yaatal liggéey bi waaye yaatalu ko yam ci ndax am na ñuy dégg naan li ñuy def ci communication yàq la wala déet mais dafay mel ne saa yu communication bi daanoon nag résultat bi day daal di feeñ ca ca saasa kon mu a ñëw fan ngeen toll ci wàllu communication ci Touba ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Euh, ginnaaw bu ñu santee sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu sang Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul di sant sunu sëriñ sëriñ Modou Maxtaar Mbàkke moom sëriñ bu Boussa Dieng ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool muy téléspectateur Lamfal TV <coughs> waaye di ziar sama sang bu tedd bi nga xam ne moom laa bokkal nekk ci plateau bi muy sëriñ Mourtada ak sëñ Mbaytan di la nuyu sëriñ Fallil Silla Euh, di wax rek ne li nga wax lu am solo la mooy communication mooy defar mbir communication mooy yaata lu mën a doon euh, yàlla dogal nag ren ci communication bi Touba ca kanam li mu njëkk a def mooy dafa dem wuti ay partenaires partenaires yi mooy ñi nga xam ne ñoo yore média bi ci Sénégal euh, télévision bi ñu nekk nii di Lamp Fall am nañ ak moom partenariat partenariat bi ñi ngi am moom pour six mois pour le moment bu ñu demaatee ba ca kanam incha allah ñu renouveler ko noonu lañ ko fas yéenee def ak euh, GFM noonu lañ ko fas yéenee def ak D-Media noonu lañ ko fas yéenee def ak RTS noonu lañ ko fas yéenee def ak Touba TV noonu lañ ko fas yéenee def ak bépp organe de presse boo xam ne yaa ngi ci Sénégal. Euh, yàlla dogal bi nga xamee ne def nañ loolu ñu gis ne ci misaal rek boo ko jëlee ci làmp mi mooy euh, bi ñu tàmbalee ak moom ci mois d'avril bi yàggul li fi jot a jaar bariwul mais ba ñu dalee woote Touba ca kanam ba nga ni en tant que président commission des finance mën naa la ci wax euh, lu lu lu lu leer mooy ba ñu dalee commencé Touba ca kanam ba nga ni mësuñu am li ñu am nii ci mois bi. dara waralu ko dul communication waaw communication bi moo ko waral mooy li nga xam ne def nañ ko suñ diggante ak làmp ak li nga xam ne jaarale nañ ko bon léegi loolu li ko waral yëpp nag mooy euh, bi ñu ko defee gis nañ ne weer yi am nañ 81 millions mois d'avril bi musuñ ko am waaw te 81 millions sax teg na tuuti waaw mais dama la koy wax loolu rek nga xam ne mooy li anglais wax euh, around laa ko yóbbu maanaam fi nga xam ne fa la waaw fa la gën a jege mu ngoog léegi muy 81 millions euh, loolu nag li ko waral mooy communication communication nag amul benn mbir buy dox te mun jaarale ko ci communication mu dem fi mu war a dem amul il faut communication am ci am ci wàll ba ci social mii nga xam ne fi ñu toll ñi ngi ciy wax mu war a nekk le 18 incha allah communication bi dafa war a jàll dañu war a ko yëg dañu war a xam ne kat Touba ci kanam li muy def ci social defalu ko kenn ku dul Serigne Touba. ndax ñi nga xam ne dañoo gàddaayee ci seeni këri maam ak seeni këri baay ñëw ci dëkk bii di Touba ñun waa Touba ñoo leen war a jàppale ñun waa Touba ñoo leen war a teg ci yoon ñun waa Touba ñoo war a fexe ba seen nekkin ci biir Touba mel ni mu war a mel te loolu ngir ñu def ko rek mooy lii nga xam ne moom la Serigne Mourtala wax ñu def ko mooy lan mooy dem fekki way soxla yi comme ni nga ko waxee léegi jëluñu ku yaama neex di la ko jox mais dañuy dem taal suñuy oto dem fekki way soxla yi bu leen demee def li ñuy wax enquête on des enquêteurs Touba ci kanam dafa organiser loolu sax bëggoon naa xam naa xëy na danga ma ko may organisation boobu ñu gën ko leeral mais Touba ci kanam dafa organiser ñu am des enquêteurs sociaux enquêteurs yooyu ñoom ñooy dem seeti ñooñu bu ñu demee seet leen xool ndax kii yeyoo na ko bu ko yeyoo te du kii famille bi lay doon ndax boo leen dégloo sëñ Mourtala daf ne daaw 338 familles waxul 338 personnes par buntu kër la ñuy dugg. buntu kër bu ñu dugg ñu xool ne buntu kër booba yooyoo na ko ñu fexe ba jox la loo xam ne ci weeru koor bi da ci mën a jàppandiku ci 30 jours yi ndogoo ko loolu nag li sëñ laa wax ñoo ngi ciy tàllal képp koo xam ne dangaa yaakaar ne war nga cee mën a jàpp nga jàpp ci parce que li am di social tàmbalee ko ca ba ñuy soog a sos Touba kanam moo ba ñuy soog a sos Touba ca kanam ci social bi buñ ko seetloo ndaamaatu lañ ci njëkk a def action muy ca euh, walma waaw te la fa njëkk dem booba tubaat ci kanam zéro franc la déparé amuñu woon un franc waaye ñun ñoo làmboon suñuy poos def ko fa kon bu ñu demee ba ñu naan la Touba ci kanam ci mois d' avril bi 459 millions mi ngi ci banque yi ñu dépensé plus de 700 millions ci li nga xam ne mooy liggéeyu Touba ci kanam loolu dafay wane ne kon Touba ci kanam am na fu mu egg ndax ku départ zéro franc def lii ba pare yor lii loolu lu am solo la te loolu yëpp it communication bee ko andi kon Serigne Fallilou bisimilah. <laughs> Eh, jërëjëf sëñ Mourou Mamoun eh, communication bi am na solo lool. Euh, communication bi nag danaa ñëw ci sociale bi danaa ñëw ci finance bi ndax euh, wax nga ne quatre-vingt-un millions lañ am ci weer wii te mosuñu ko am euh, am nañ ci compte banque bi quatre cent et quelques millions dépensé nañ sept cent nangam millions te li gën a ci Touba ci kanam mooy xaalisam doonut loo xamante ni matériel la buy jale bu ñu am nañ nangam rek boo demee ci compte ga moo fay fekk waaye roulement yi nga xam ne moom la ñu roulé nañ xam ne lu ci ëpp xaalis bi sax daanaka lu ci génn am na lu ko fa lu ko fa lu ko fa wutuwaat ca dara waralu ko lu wees waa lu wàllu si wàllu communication waaye day mel ni communication it sëñ Modou Mamoune mënuñu koo tudd ndax gis naa ne anglais yi euh, américains yi yaa ma leen gën miin producteur bi euh, balaa def produire rek euh, wut na communicateur ba mu taxaw nga xam ne li muy defar balaa pare ki koy jaay jaayal na ko ko kon day mel ne communication bi mooy jaay Touba ca kanam day mel ni ci wàllu communication bi itam dañoo ciblé da ngaa tudd rek Lamp Fall TV Euh, tudd euh, TFM tudd yeneen télévision waaye nag communication yemul ci ay ay télévision da am na yeneen bànqaas. loolu foofu maa ngi maa ngi fii ñëw parce que bu ñu xoolee dañuy gis ne à chaque fois ñuy def le bilan mensuel Touba Mbacké moo ci ëpp lu lu ci génn xam nga lu ko waral. Touba mooy ëpp lu muy teg moo ëpp luy génn ci ci ci mensuel depuis ba Touba ca kanam excès ba naga ni li Touba di génne. fenn du ko génn ci ci ci ci ci ci maanaam li bokk ci àdduna bi le loolu xam nga lu ko waral sëñ Fallou communication rajo locale yi parce que ren rajo locale yi dañ leen a jël pour un an ñu dem fekki leen fay leen te ñoom ñu ngi jàllale suñuy produit en plus dañuy invité ay plateau ñuy wax lan moo ci nekk mais ba tey communication bi sëñ Fallou tableau yi nga xam ne moo nekk ci mbedd mi affiche yi yooyu aussi ci communication bi la bokk mais réseaux sociaux yi parce que tubaa ci kanam ci boppam am na benn YouTube channel boo xam ne moo ko moom maanaam li ñuy wax kanaalu YouTube boo xam ne bu tubaa ci kanam la ña nga fa di ko fa jaar mais ñi ngi lënkaloo aussi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yore lépp lu jëm ci euh, média média média wu online li ñuy wax online media ñu ngi ñu ngi lëkkaloo ak ñoom mën naa la ci limal ku ci mel ne Touba info mën naa la ci tubaa info mooy ndeyu Touba ci kanam bu tubaa ci kanam juddoo tubaa info moo tax parce que ab programme la fa woon ab émission la fa woon Serigne Cheikh Amar ak Serigne Fallou Ndiaye doon ko fa jàllale ba nit ñi gis ne lii lu am solo la ñu def ko ci WhatsApp bi ñu ko defee ci WhatsApp nit ñi fekk si leen man mii ci laa bokk ci leen fekk si ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba Touba ci kanam egg si fi mu yegg si tey kon Touba Info moom mooy laytaay li Touba Info moomu bokk na ci ah boo demee ci li nga waaw yu bari yu nekk ci internet bi ci lañ bokk kon réseaux sociaux yi aussi ñi ngi ciy ñi ngi ciy laal bu baax a baax a baax ngir ñu mën a fexe ba accéder information bi ci fi mu war a egg kon sans li ma lay wax ni communication vraiment Touba ci kanam du woon egg si fi mu yegg si nii même waa diaspora bi sax aussi ñu ngi ci communication bi lu mel ne euh, en xasaayit rajo xasaayit online lu mel ne Touba Monde TV bi ak Bichri TV se waaw CNF bi nga xam ne sëñ Mbaye Tène mi animateur la fa ak yooyu yooyu yëpp ñoom ñëpp ñu ngi ci communication bi hmm. kon communication ah, ah. communication gis naa ne daaw amoon nañ ci communication lu am solo mooy oto boobu ñu luye woon te dafa lu gaaw ci communication ok xam nga loolu la anglais wax billboard track waaw moom la tudd ti billboard track nga xam ne dafay am télévision let bu ñëwee ñu teg ko ci di ci jàllale di def leneen dañ koo luyee ñaari yoon ñaari yoon bu màggal jubsee ñu luyee ko pour ñaar fukki fan yor ko ci département Mbàkke bi daawuñ sax génn romb département Mbàkke bi daaw rek lañ ci dem jaareem ci café Ndey Njaay mais à part ça ci génn fii ñu gis ne daan nañu defal lu am solo Sëriñ Fàllilu parce que nit ñi doon nañ doon nañ gis Touba ci kanam mais doon nañ gis seen bopp ci Touba ci kanam aussi parce que dañ lay won li ñu réaliser xam nga bu fekkee ne tey danga ne dañoo dañuy tabax benn euh, poste de santé poste de santé bi ñu ne dinañ ci def supposons 140 millions man au moins 140 millions yu ma ci def mais am naa 1000 francs yu ma ciy def sëñ Mourtada am 1000 francs sëñ Fallou Sylla am sëñ Mbaye Tène am bu ñu boolee suñuy 1000 1000 1000 dinañ am 140 millions mais su ma rombee poste bi dama naan maa ko léegi nag bu coxak boobu taxawee camion boobu bu taxawee ñu génneel ma poste de santé ma jàkkaarloog moom damay yëg sama bopp ca loola damay daal di wax ne les de sans poste de santé la waaw maa ngi ko ci defoon mais Touba ci kanam xool nag ne kon kooku comme dafa nekk support de communication bu am solo ñu ne nañ ko jënd au ñu koy luyee ba léegi jënd nañ ci benn mi ngi ci ndox mi di ñëw incha allahu rabi bu ñëwee dinañ sillonné Sénégal gépp def ay caravane ànd ak waa massification fas yéenee gën a wane Touba ca kanam macha allah jërëjëf euh, sëñ Modou Mamoun jërëjëf yi bokk téléspectateurs yi ñu topp di ñu euh, topp ci seen télévision Lamfal TV tey ñu ngi ànd ak seen jataayu nooru dara yi ni Touba ca kanam yaakaar naa ne déglu nañ waa social déglu nañ itam waa diaspora bi déglu nañ itam waa communication te sëñ Modou Mamoun indi ci tomb bu am solo mu jëm ci wàllu communication xam naa damay defaat tuuru 3 euh, minutes 3 minutes rek ndax waxtu wi mi ngi ñuy jàtt sëñ Mourtala damay ñëwaat ak yow xam naa ne sociale bi ñor na la lool day mel ne weeru koor wi ñor na la ba àgg ci lool waaye damay gis ci ab soññee ku mel ne sëñ mun taxa day wax ne maa dagal juróom-ñeent fukki murit ñoo xam ne wóolu naa seen pas-pas ak juróom-ñeent génne lu mat un million nangam def ko ci social bokkut ak carte de membre am ma xool ku mel ne sëñ Abdou Fatah ñaata yoon la joxe ay saa yu ñu accès mu wàññi million ba ñu teg poste de xeeru euh, poste de santé ba nekk cee Daaru Xadim génne na million fa saasa ba ñuy teg bërëb sàngam génne na million nga xam ne ñoom liñ gëm mooy dëkku Serigne Touba bii kat ñoom ñoo bokk ci ñi ko war a dundal léegi nag loolu ñi ko mën dafa bari ñi ko mën dafa bari loo jot ne ñoom moom la ñuy xaar loo jot ne moom la ñuy xaar ngir liñ bëgg ci Touba ndax kenn ku nekk boo sañoon sañoon sa mbedd set boo sañoon sa waa kër am fu ñuy fajoo buñ ne social nga ne am naa daar sàngam ju ñu waroon a def am bu ñëwee poste de santé bi nga ne war nañ ko yóbbu karti sàngam ñooñu moom quartier yi ñooñu moom daara yi ñooñu moom kër yi tey kilifa yi lu ñuy xaar ci Touba ci kanam ngir liñ bëgg ci Touba ñu mën ko euh, ñu ngi lay sëñ euh, sëñ Mamadou Fadel Mamadou Fadel Silla ñu ngi lay santaat bu baax di rafetlu laaj bu baax a baax di profité waale di nuyu waale mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal Touba ci kanam ñëpp bàyyiwuñu kenn rawatina nag. ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ay commi commission sociale te ñu ciy jàmbaar lool manees na cee tudd sëñ Moustapha Amar mi nga xam ne lii ñuy dénk moo ko moo ko moo ko yoroon def ci liggéey bu am solo comme ni ko sañ bay Mbayteen leerale ak sëñ Balla Mbodj ñoom sëñ Moustapha Dieng sëñ Baara Fall euh, ak mbokki soxna ya sëñ Mbay Siise ñoom sëñ Alima soxna Alimati Dukure soxna Asuwaaj ñu baree bari lañ ñoo xam ne nii ñëpp ay jàmbaar lañ xam na bu ñu limee mën nañoo bañ a matal waaye ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di gis seenu jàppale ndax bu doon man rekk la eh, yëf yi du dem fenn waaye ku ci nekk day jàpp rek moo tax muy mu muy mën a dox li nga wax wax ju am solo la ndax sëñ Tuubaa moom la fay rawee ci pësteef rek la ndax sëñ moom li mu yore eh, mayeewut day jaay ñi nga xam ne nii loolu la suñu borom waxoon yonente bi rek inna allaha stara moom mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii mooy Abdoulaye wa Xaadimu Rasuulihi moom li mu am da koy da koy jaay mayewut te loolu le doy na sëkk rek li nga xam ne moom la waxoon borom dëkk bii di Cheikh Mamadou Fadal ba mu ko booleeg sëñ moom Moussa al Karim ak sëñ Modou Rokhaya Bousso ak sëñ Massamba wax jëm leen waxoon ba tax ñoom ñëpp ñu jaay seenu lañ doon ca lam doon ca ñoom jënde ko ak taalibe te Cheikh Mamadou Fadal defoon ci ay bayit yu am solo wax ne bayitu bu nu watiyee bil irada lakkum li koy oxsa bi xare min ba'di maa saraytumuuhaa minnii ahdaytuhaa lakum bi xayri manni loola ku nekk xam na ne fu moo Mouhamadoul Fadal àgg jaay googu mu jaay ak njuréelam jënde ko taalibe moo ko may ndax yëmul rek ci sëriñ bi mooy sama nangam waaye daa daa jël loola lépp teg ko fële jël li nga xam ne mooy amee ci mayee ci yoon wi dara mooy ak taalibe jënde ko ko loolu tamit ñi nga xam ne moom moom lañ fi bàyyi ñëpp ci foofu lañ teg seen tànk ba Cheikh Mamadou Mountakha mii nga xam ne nii moom moom nga tudd léegi nga xam ne mooy mooy Serigne Touba ci kaw suuf yaakaar naa jëf ju wax ba wax ne jëf jii dama ci am yaqin Touba ci kanam dama ci am yaqin ne liggéey bu Serigne nangu la. ba tax na bi nga xamee ne am nañ ci ndigalul Cheikh Sidi Maxtaar ndax ci Touba ci kanam mi ngi sosoo ci ndigalul Cheikh Sidi Maxtaar mu taxawaay ci taxawaay bu am solo moom Cheikh Sidi Maxtaar di ñaan sunu borom yokk ay ngërëm moom te taasuñu ci barkeem Cheikh Mouhamadul mu ci jamono jooju nga xam ne moo nekkoon jëwriñ ni Cheikh Cheikh Sidi Makhtar ca la fasoo woon ne at mu jot fas naa yéenee man daggal sama bopp carte dama ma euh, cotiser at joxe sama bopp mille francs yi nga xam ne moom lañu joxe ci at mi waaye nag joxe waale juróom-ñeenti nit ñoo xam ne am nañ yéene bokk ci te amuñu kàttanu def ko loolu la doon def ba nekk Sëñ Tuubaa di continuer di ko di ko di ko def ba ren jii nag mu ne day jógee ca loolu sax li muy def mooy joxeel juróom-ñeent joxeel boppam ba noppi joxeel juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñoo xam ne am nañu yéene def ko 99 personnes ak moom muy 100 99 personnes nag ak moom muy 100 wax la joo xam ne du asaar ndax turu yàlla yëpp 99 la ñuy lim waaye am na ci benn boo xam ne kenn xamu ko la kenn xamul nag kon mooy Cheikh Mamadou Mountakha loolu nag su ma ko waxee ñi nga xam ne dañuy déglu te nga xam ne loo wax rek ñu jàppee ñu tega ko bokkaale bokkaale wu ma xam naa ku bëgg a jubóog sa boroom wala nga am la nga bëgg sa sa borom da nga ko jaar Cheikh Ahmadul Xadim looloo tax ma ma ma ma ma waxee noonu waaye jubluwu ñoo bokkaale ndax jamono ji moom loo wax rek ñu ñu kii ko. ba tax na njabootu Cheikh Ahmadul Xadim gépp ku ci nekk noonu la def man nga koo tàmbalee ci sëñ Siidi mu sëñ Abdul Ahad mi xam ne mooy jëwni sëñ Cheikh Mountakha moom tamit noonu la def bi accès moom Cheikh sëñ mu sëñ Fàllu ba ci waa ko sëñ Abdou Xaadir ñoom euh, Ahmadul Maxtaar sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw Poroxaan lañ ko fekk ñooñu ñëpp njabootu sëñ Tuubaa gépp noonu lañ def sëñ Abdou Fatah mi nga tudd léegi moom tamit jëf ci jëf ci am solo ndax at jot bu ñëwee eh, yaakaar naa ba ba muy joxe un million ci Tuubaa ci kanam booba sax waa Tuubaa ci kanam ñëwagun ci moom sëñ Abibu moo taseeg moom ci biir jumaa ji rek wax ko ne ko am na eh, kuréel gu sosu goo xam ne Tuubaa ca kanam baatu Tuubaa ca kanam gi rek moo tax moom mu daal di mu ne mu ne mu ne mu daal di joxe un million ci sens moom boobaak léegi tamit at mu jot mu joxe ko yaakaar naa at mi mu ko njëkkee joxe bi ma demee ci moom di ko wax ne ko euh, li nga joxe de ci mi at la war a toll dana moom lim lim li muy jox li muy def Sëriñ tubaa jéemu ci jéemu ta calcul lu muy tolloog la muy kiit moom wax wax waxtu wun laajee Sëriñ Tuubaa daal mu dugal ci kon nag loolu ab soññee la ci mboolem ku ñuy tudd tudd sëriñ bi ndax ka ndax euh, ñëwul ñu defal Tuubaa moom mooy kaa ñu defaral ñu sa dëkkub maam ñu ñii ñëpp kuñ ci waxoon ne ko kaay kaay ñu dajale alal defaral la ko sa dëkkum maam nga nangu kon nag asama ak sëñ mi nga xam ne nag dañoo defal loo xam ne nii kenn defaluñu ko defal ñu lu ñu jomb mënal ñu fii ci àdduna te ñoo ngi koy gis bu baax a baax te lam ñu mënal àllaaxira moo raw fuuf kon nag kooka moom bu bu bu wootee ki nga xam ne ñoo nekk ca bopp ba nekk ca njiit njiit ya di ca jëf-jëf ju am solo yow mi nga xam ne yaa ngi nekk ci ginnaaw yaakaar naa kenn warul la caa jiitu nit ñi nag dañuy fàtte waaye kon ñi ngi fàttale suñu bokk yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom lañuy tudd tudd sëriñ bi te xam ne liggéey murit moom la ko mën a jariñ mooy am ndigal te sëñ Tuubaa waxoon na ne bu leen def lenn lu tegewul ci ndigal te jëf joo xam ne nii ki ki ki nekkal sëñ Tuubaa moo moo ko jiite yaakaar naa jëf joojo ju rafet war a njort rafet njort la te waxaat na rek bu yàggul ne gis na ne tubaa ci kanam li li sëñ Touba ñaan ci Matlabul Fawzayni lépp tubaa ci kanam gii dana ko taxaw dana ko sàmm waaw la sëñ Abdou Lahad daan wax rek lépp lu la waaye rawee di ëllëg ba mu koy def yaa ngi taxaw di ko xool te sëñ Moussa Ka daan wax ne noobul euh, noobul bu engagé ba dem ca guerre ba. nuroowul nuroowul ak civil bisub bisub bisub bisub payoor ba. kon nekk nekk naa murit rek doyut waaye da ngay fexe nag ba def li murit def te murit moom bu ñu koy wax mooy ndigal ak ñaq ak ñaq ñaq ak ñuqi kon nag maa ngi ciy maa ngi ciy soññ sama bopp waaye di ci soññ sama bokki taalibe ndax doy na sëkk rek Cheikh Mamadou Mountakha mi fu mu toll xam ne ku nekk xam na ne pësteef ak liggéey sëñ moo ko fa toll ku bëgg a xëy na kenn mënul mënut a mel na ñoom waaye ku leen roy mën ngaa sori. macha allah jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mourtada euh, kon sëñ Mbaye yow itam xam naa lu toll ci ñetti minutes gis naa ni sëriñ bi euh, soññe na ci fànn googu yow itam diaspora bi daa mel ne am ngeen aw sas ndax yéen a ngi ci 62 pays waaye 197 pays moo ne ci ci ci àdduna it fu ci nekk am murite nga fa. te yaakaar naa ne loolu ngeen tànt ne yéen war ngeen am un million murit fu nekk bu ngeen fa amee vingt personnes dana baax kon yaakaar naa ne loolu itam ay jéego la yu des ci seen kanam. Euh, jërëjëf sëriñ euh, Fallou Gallas jërëjëf euh, Serigne Murtada Abdoul Fattah ñuy am mbégte bu baax a baax ci jotaay bi sëñ Fallou wax nga dëgg dese nañu lu bari waaye liggéeyu Serigne bi noonu lay doxee ngir wan rek li ñu soxla woon defe naa am na benn président. États-Unis bu ma sa wax loolu su ñu amee institution bu am doole rek yaakaar naa li ñu bëgg dinañ ko mën a am te moom mooy système bi Touba ci kanam du nit mais système la système bi léegi su fekkee dañ ko teg rek ñëpp fexe ba jaar ci yoon woowu ñun lu ñu gën a soxla d'abord sax dëgg la deux milliards yi baax na par mois 24 milliards yi mais ñun luñ lu ñu gën soxla mooy liggéey ba am 2 millions de murid yoo xam ne jox nañ Sëñ tubaa seen bopp joxu biir goo xam ne. Euh, séedeeluñ ko kenn li feeg ñu ngi dund dañuy warlu loolu parce que ni mën a joxe tey dara suba moom bañ ko joxe mais ñun suñu liggéey suñu communication ñi ngi ko basé wu ci njàngaleem Sëñ Tuubaa ba murid di xam ne li ñu am Sëñ Tuubaa lañ ko jox dañ ko war a delloo te loolu sëñ wax na ko léegi loolu moo tax nag ba liggéey boobu euh, ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax tey ci wàllu communication bi nga rek ñu ngi am ay organe de presse yoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñoo xam ne commencé nañu liggéey ak ñoom lu mel ni Monde bi TV lu mel ni xasida online lu mel ni Bichri TV Sen FM bu Gambie ak yeneen i médias yoo xam ne euh, pare nañu pour ànd ak ñun ci liggéey bi ndax euh, diaspora bi dafa am lu fa nekk non seulement am na lu fay bàyyi ko ci wàllu économie mais dafa am ressource humaine bu fa nekk ak ay techniciens yoo xam ne euh, sëñ Tuubaa moom te kenn ku ne sa xam-xam boobu ci nga yor sa bopp di ci def li nga war a def ñoo ñu nag ñoo dem ba yëg ni sëñ Tuubaa moom soxla na ñu war leen regrouper nag organiser leen ba ñoom it ñu mën leen a canaliser ba ñoom li ñu war a ci Touba kanam ñu mën ko def loolu nag bokk na ci euh, méthode communication bi nga xam ne ñu ngi ko doon def muy café diaspora tey su ma la waxee ñeenti continent yi fu mel ni amerique tey fu mel ni Cincinnati defoon nañ fa bis bu am solo boo xam ne Touba ci kanam xam nga ne Amérique 52 états la sëñ Mamoun mooy suñu doyen mii fii te bu ñu xoolee tey daaw mën nañ ne euh, état yu bari dugguñ woon waaye fu mel ni Cincinnati def nañ fa bis bu am am solo. New York moom def nañ fa ñaar ba ñetti yoon yoo xam ne eh, bis yi fay am ñi ngi fay jàllale Touba ci kanam bu baax a baax fu mel ni Washington tamit eh, lu mel noonu am na fa fu mel ni Detroit moom tamit lu mel noonu moom it am na fa eh, ba yeneen état yi fa nekk ñu ngi ci liggéey yu am solo ba nga xam ne 9 juin bi ñëw sax bokk na ci suñu perspective mooy café diaspora yoo xam ne maanaam Touba ci kanam moo koy organisé mooy bu njëkk Touba ci kanam da ngay am sa bis mu occasionné wu ci. jokkoo ak jëwriñ ji jàllale message am dañu nag fas yéene jege état boobu dem ci état bu mbooleem coordonnateur yi réew yi kenn ku ne dem ba àgg ci am bis boo xam ne spécial Touba ci kanam lay doon loolu nag Amérique ñoom commencé nañu ba lance nañ seen journée bi muy le 9 juin yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm bu ñu demee fu mel ni itali def na moom it jéego yu rëy rëy mooy mbooleem bis Serigne Touba yi loolu tam euh, ñu koy waxaat euh, sëñ Abdou Fatah mi président Touba ci kanam bi si Serigne Touba yi am ci biir réew mi ña koy jiite doon waa kër Serigne Touba ak i taalibe ñu fexe ba seen bis ya ñu ciy am donte dix minutes la kaddu Touba ca kanam goog dañuy leeral seeni i réalisation ak fi njëm lu am solo la. loolu nag organisation bi am ci bi ñun jiitu nañ leen ci loolu. fii may waxe yow nii ci Serigne Touba moo xam Bamba Day la moo xam journée xasaayit moo xam màggalu doomi Serigne Touba yi ak sët loolu ne am nañ fa standu tubaa ca kanam am kenn ku jël kaddu ngir leeral liggéey boobu tout récemment rek Gambie moo ci mujj muy euh, euh, euh, bis bi ñu doon amal ci réewum Gambie di semaine ba la ñu génn muy lu am solo loo xam ne jëwruñu Serigne Touba ba nekk moo jël kaddu leeral wane ne liggéey bii bu ni mel mësul am Serigne Saliou Samb ñu ngi koy remercier de passage moom jël na fa keroog lu mat 10 minutes leeral ci liggéey bi lu am solo loo xam ne vraiment ñi nga xam ne ay porteurs de voix lañu te ne ci yoonu murit te sëñ tubaa lebal leen luñ mun ta fay seen bopp mooy ñu di leen déglu topp leen amel nañ bor sëñ tubaa bu leen ko waxee bu leen ko waxut fu ñu toog yaatal lii di tubaa ci kanam loolu damay wax ne kenn ku ne war nga delloo njukkal sëñ tubaa li nga gën a say bokk mbaa nga mën leen ko te ku ne xam nga sa diggante ak ci loolu euh, bu dee fu mel ni Espagne am na fa France muy Paris Marseille am na fa Belgique ñu ngi woon seen journée bi Angleterre def nañ ko fan yi passé Suisse tamit ñu ngi ci liggéey mel noonu kon suñu xoolee rek mën nañu wax ne mbooleem événement yi daan am ci yoonu murit ci diaspora bi léegi fexe nañ ba euh, dugal fa tubaa ci kanam ba bépp événement bu am daañ fa am benn 10 minutes boo xam ne réalisation yi information yi nga xam ne réew moom moom lañ soxla pour ñu mën a jot dëgg-dëgg tubaa ci kanam ak perspective yi lan lañ soxla pour def ko ak ñoom ñi ngi ciy liggéey liggéey boo am am solo kon daal sëñ Fallou xëy na ci tënk mel na ni ma la ko waxee lu war a mat ay juróom-ñeenti sous commission xëy na nga bëgg ko tënk ci cinq da ngay abrégé rek mais du ñàkk nag ci jataay yi ñëw ci kanam commission bu ci nekk laaj na ñu toj ko leeral ko ndax su loolu duggee ci bopp nit ñi rek non seulement dañuy bokk mais du yem ci bokk mais dañuy jàpp te duñ bàyyi. macha allah jërëjëf euh, danañ bàyyi kon euh, sëñ Mourou Mamoun yow itam euh, ñetti minute rek dafa wax nag baat bu am solo danaa ci del dellusiwaat te loolu jëm ci wàllu communication la nee ñi nga xam ne ay porteurs de lañ te ne ci yoon wi conférenciers yi la ilimaan yi lañ ñiy woote ay màggal lañ day mel ne ñëpp ñoo seq Touba ca kanam kon day mel ne jaadu na képp kuy waxati ci sëñ Touba bala ngaa daane donte émission ngay def ci rajo sax nga bàyyiloo xel nit kanam ndax loolu yaakaar Euh, liggéey la boo xam ne Sëñ Abdu Lahat na woon dajale matt gi say wi yóbbu ko yombut waaye fexeel ba kenn ku ci nekk say wa sag matt ne ca sag matt na ci nag mooy fa ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa nga amal ca benn une minute boo xamante ni bi da ko jagleel Tuubaa ci kanam moo xam ngay def émission ci télévision wala ngay def émission ci rajo wala ngay waxtaan ci ay baas wala ku mën a doon rek bala ngaa daaneel nga ne maa ngi fàttaliwaat bokki jullit ak bokki taalibe yi liggéeyub Tuubaa ci kanam yaakaar naa loolu ci communication bi la nekk sëñ sëñ Modu bi la bokk lu lu mat a def la lu mat a xalaat lu mat a bàyyi xel la Euh, te rawatina sunu sang si sunu sang si nga xam ne ñooy tukki sunu sang si nga xam ne ñooy xew sunu sang si nga xam ne dëkk bii di Touba seen maam ba mu koy sanc bi mu ko sañcee ba noppi li mu def mooy woo nit ñi ñu ñëw fi rawatina Serigne Fallilou mi nga xam ne moom moo ne woon may Touba waaw nga xam ne daf ne woon ne ku fi ñëpp ñëpp fekk si gis nañ waa këram niñ ciy jàppe waaye noonu la war a ñëpp nag kenn ku nekk jàpp ci sëñ tàkku bu génnee ci bu mën a génn ci Touba ci kanam lay wax sëñ Cheikh Oumy noonu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak noonu kon ñoo ngi ñaan képp koo xam ne kilifa nga ak foo kilifa te bokk ci waa kër sëñ Touba moo xam ci seex si nga moo xam ci sëti sëñ Touba la ñoo ngi lay ñaan boo génnatee wala booy wax ak sa mbooloo ak koo mën a doon nga fàttali leen Touba ci kanam Touba ci kanam li fiy dugg bu fi duggee ba noppi amul benn dërëm bu ci génn dugg ci poosu kenn ku nekk tubaa ci kanam mais dërëm bi bu duggee ci Touba ci kanam ba dugg fi ba noppi fi muy demaat mooy ci Touba lay des moo xam dañ koy def mu dem ci suuf si moo xam dañ koy def ci mu dem ci koo xam ne dafa soxla te nekk ci Touba comme ni waa social di def loolu nag kon ñoom lañ ñuy liggéeyal muy waa kër Sëñ Touba yi Touba ci kanam waa kër Sëñ Touba yi lay liggéeyal kon waa kër Sëñ Touba yi nañ dellu siwaat jàppaat ci Touba ci kanam loolu ñoo ngi leen koy ñaan loolu muy li nga xam ne point bi nga ma laaj muy am benn point boo xam ne rek sëñ Fallou naa ci xaw a demaat tuuti parce que dañ ma jox benn organe boo xam ne man maa ko yor muy la commission des finances xaalis di dugg ci réew mi di dugg ci Touba ci kanam ci duggin woo xam ne nit ñi dañ xam ni muy dugge mais xamuñu nu muy génne ni muy génne dafa am solo xaalis Touba ci kanam ni muy génne mooy tey commission bu mu mën a doon ndax lu ñu fi mën a def rek ab commission koy def moo xam social la moo xam réalisation la moo xam euh, communication la moo xam mais bu mu mën a doon rek su ab commission koy def commission boobu day def expression en besoin wax ne man lii laa soxla ngir def ko ci dëkk Touba bi buñ ko waxtaanee ñoom ci seen biir commission ba mu noppi ba jekk dañ koy jël jébbal ko comité directeur comité directeur jàngat daal di ne lii waru na buñ ko jëlee waru na nag dañ koy daal di yëkkati indi ko commission communication commission des finances commission des finances jàngat ko. gën ko jàngat waru gi buñ ko defee pare ñu xool ndax dafa am ab perspective boo xam ne dañ ko def pour deux mille dix neuf daa di ne deux mille dix neuf war nañu dépasser nangam. commission boobu dafa amaat beneen sous commission bu ñuy wax achat ñu yëkkati ko jox ko waa achat ne leen wuti leen njëkk wala wuti leen entrepreneur wala wuti leen matériel bi wala wala wala ñoom ñoo waa com sous commission achat bu ñu demee xool ko ba gis ne am nañ li ñu soxla dañ koy delloo si waat commission des finances commission des finances xool ndax lañ leen joxoon ñoom loola la ñu ñu xool ne loolu lañ toppatoo ñu daal di jël nag loolu jox ko nag l' administrateur ci kanam dafa dafa dafa structuré sëñ Fallou dafa structurer parce que dégg li ma lay wax yëpp am na administrateur administrateur bokkul dara ci li nga xam ne mooy association bi moom mooy gérer les bureaux de Touba dafa am administrateur am fa ay comptable am fa secrétaire am fa lu ne administrateur boobu mooy gérer foofu ñu koy wax sëñ Khadim Diouf un excellent travailleur buñ ko moom buñ ko ko joxee. li muy daal def mooy day bind li ñuy wax bon de décaissement mais bon de décaissement bi bu ñu ko bindee ba pare duñ dem rek daal décaissé day ñëwaat ci président commission des finance ñëw ci man mais bu dikkee tey te àndut ak facture proforma àndut ak lenn du ma ko signé dañ koy indi ma vérifier la ca facture ba est-ce que moom li ñu ma defal ci bon de décaissement bi ñoo bokk ma daal di jël facture booba attaché ko ca ba ko ca attaché pare signé delloowaat ko nag sëñ Xaadim Diouf sëñ Xaadim daal di jël ko euh, chauffeur bi nga xam ne mooy coursier bi mu dem ci le trésorier général trésorier bi xool ndax bon décaissement bi ak facteur bi ak la jaarloon finance ñoo bokk mu soog di bind chèque bu bindee chèque day signe parce que moom c'est un signataire ñu jël chèque boobu jox ko coursier bi mu dellu ci président wu Touba ca kanam mu vérifier xool lépp signe ñu jox ko coursier bi mu dem ci sëñ Abdoulahatum sëñ Abibu mu vérifier xool signe bu fa jógee dem ci sëriñ Abibu moom sëriñ Fàllilu mooy signataire bu mujj bi mu bu bu signé loola day jàll bu ne lii doyuma du ma signé ñu ñu jàppe ko ndigal waaw daal di bàyyi loola xool ban action lañuy demaat waaye action boobu moom day daal di tëdd àlloo léegi nag bu fekkee ne nag signé na mu jàll tu vois action boobu day continuer nga xam ne kon moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy le dernier rempart mënu mënoo ko romb fenn kon benn dërëm du ci génn ci nu wërta génn fa muy génn day tegu ci yoon tubaa ci kanam nag noonu la structuré nekk structuration bu am solo assemblée général commité directeur bureau bureau boo xam ne dafa ànd ay commission commission yi di fukki commission ak benn ba pare nag ñu daal di wut nag benn bureau boo xam ne administratif la bu ñuy liggéeyee un administrateur ne fa mu am ay comptable am secrétaire am la leneen kon Serigne Fallilou. jërëjëf euh, sëñ Moudou Mamoun euh, jërëjëf sëñ Mourtala jërëjëf itam sëñ mbay jërëjëf bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu topp di ñu seetaan seen télévision Lamfal TV. ci jataay bi nga xam ne doon nañ ko amal seq ko ak waa daayira nooru daare ni tubaa ca kanam ginaaw bu ñu sante bu baax a baax sëriñ abibu moom Cheikh Mamadou Fadal waaye sant alaaji sëriñ Tàkku Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal mu am ci taxawaay bu ràññiku moom itam ak sëriñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mamadou Fadal ñoom ñëpp ñu ci taxaw sëriñ Laat Abibu sëriñ Cheikh Mbàkke Omar ak bokk yi ñu ko seqal yëpp rek ba ci sëriñ Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne mooy président bi waaye di sant rek ne ci taxawaayu tubaa ca kanam pour mu gën a leer àdduna bépp xam ne kuréel la boo xam ne bi mu sosoo amul kenn koo xam ne da nga ko yilif lu ban ñaari at ca buñ la sensé du tax nga bàyyi lu am solo ngi noonu nag ci ab association eh, sëñ Fallou Ndiaye moo nekkoon président bi bokk ci créateur Touba ci kanam waaye biñ ko fa changé rek dañ ko daal di yóbbu ci communication mu d'accord waaye gis nga Moustapha Amar moo nekkoon social bi ñu ko sensé sëñ Mourtala moo ko kenn ku ne bu ñu la sensé poste bañ la yóbbu rek da gënal ba nga nekkoon fii doonut foo xam ne dañ fiy xëccoo ab poste waaye doonut foo xam ne nit ki naan maa koy jiite continuer di amul ndax li ñu ngay gis ne mooy li ñu la jiital mooy ab coono la waaye njariñ la baatin lay doon waaye du lool saayir ndax euh, li nga ciy tegtale rek Touba ca kanam suñuy jóg léegi rek fi nga jëm si nii dañ ne essence ñu ne nañ ko cotiser nga xam ne da ngay génne 1000 kii génne 1000 ci ñaan ñi nga ne denc nañ 400 nangam millions war a def si benn émission ñi kanam ne waruma laa jox waruma ko sëñ abi buy waxee dërëm bu dugg ci Touba ci kanam moom néew néew bu dugg Touba ñooyom kon ñiy joxe seen xaalis mu leer leen nañ ñi ne si ñuy joxe seen xaalis kat doon na ñu ngi leen laaj luñ waaye ñu ngi leen koy defal fu leer nañ waaye mu des benn appel boo xamante ne bi nag maa ngi koy lancé monde bépp ndax daf maa ñor te ci Touba ci kanam la bokk mooy boo demee a Munawara wala nga dem Makkatul Mukarrama karo yi nga xam ne moo fay nekk ay oto koy raxas mais oto yooyu sapon lañ ko defaree day jaay ana murit yi sëñ Tuubaa yi lan moo tee ñu mën koo jënd andi ko ci jumaa ji muy raxas karo yi ñu jaarale ko ci Tuubaa ci kanam fukki oto rek bu ñu ko amoon jumaa ji di set xoolal jumaa ji juma ni muy tàngee lan moo tee ventilo yi nga xam day upp glace nit ñi jullee ci na ci yokk bi yokk bi dafa fees ba tey karo bi day tàng jir nit ñi dañuy dañuy daanuy xam ci weeru koor lañ ne loolu lépp xalaati Touba ca kanam la yéenay Touba ci kanam la murid yi am nañ ko tisaaroo nañ ci àdduna bi nan ko jënd jox ko Touba ca kanam mu defal ko sëñ Touba ci dëkkam bi tumuranke jeex fi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu